Birahim de top 5 laa ko yóbbu. Garga Mbossé top 5 laa ko yóbbu. Fara ci kattanu yàlla top 5 la jëm. top 5 bi. moo nar a doy waar li nga wax. waaw gëm-gëm la dama gëm ah tawhid laa am gëm ni dama koy daan ah, yóbbu ko top 5. ña daal dama leen a yab teg sama ci buntu entrée bi. waaw xanaa kon yéen bu dee maa mag Franc kon na mag non dama ne moom xale lañ ko mun a wax xale lañ ko mun a wax bu fekkee damaa nekk mag muy sonal Sénégal na ma coronavirus bi jël noppal waa Sénégal bu dee damaa nekk mag bu tax ñu naan Franc Franc sa mag dama ko mun a magee nit Franc nit ak tofam laa koy magee rek su maa ko mag nit ak tofam lañ te beneen bi mooy góor boo ko da boo ko ñamul bu ko yab de maaga lañ la mosoo bëri arène nationale te dañu wax ne arène nationale dafa ah, man day ci suuf laa dëkk géej laa yeewoo Balika ca beeñ ba laa yeewoo ragaluma lool de en tout cas bu leen neexee ñu toxal làmb ji arène nationale yóbbu ko biir parcelle. kër gu leen neex ñu suufle kër nii may waxee ak yow na ma waa bi ma gis ak kóolute bi ma gis assurance bi ma gis si bébé man lool dafa ma yéem. musul denc man lii rek moom laay diyaale. ndax nag du yàgg dara ma bàyyi làmb maa leen ko dee tey. du yàgg dara. ñaata defal nànk li jërut may lim at waaye xam naa ni Baye Karim Mbacke Fallou laay jël seere ni du yàgg dara ma bàyyi làmb. ci làmb ji laa bëggoon a bàyyi làmb ñu tere ma ñu ne ma bul wax loolu kon naa leen ko junj bu may bàyyi bu mu leen bet lan moo tax nga bëgg a bàyyi. lambi Séné non dama cee gis lu ma xamut ku ma am nday ku ma amul nday bi moo ma ma métti beneen bi mooy dañ ñoo nawlawul ñun bëri te mbaam gàtt na lool waaye ci jur gi la promoteur bi bu mbër mi amut du doon promoteur manager bi bu mbër mi amul du doon manager yéen ñii li ngeen di def bu ma waxul loon du ngeen ko wane. lan moo tax CNG lan moo tax mu bëgg ñoo jël moom ñu noot ñu takk ñu ni ñuy def gileem di ñu yës ñun ay nawleem lañ ñun waa CNG seeni nawle lañ seeni doom lañ nañ ñuy fàttaliku jaay perte du tey wàññi sa bénéfice bu saison jeexee ñi ñuy woon nañ ñu ci boole na ndoog ñun noccee ndoog ñun ndax bu làmb riiree mbër ko waral. bàyyi nañ daa bàyyi mbëriñ def baa doola comme dañ maa nar a def baa doola nag te kenn gënu ma ma bàyyi leen seen làmb ji te doon buur ni ñëpp li may tàggoo mooy naaru maam aw fa yàlla na fi yàgg tëwér sëñ Abdul Karim Mbacke naar bu ci ndindi yàlla na fi yàgg tëwér sëriñ Sidi Mbacke alxuraan yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér borom jàmm gën sëñ Babacar Mbacke mu kabaro yàlla na fi yàgg tëwér sëñ Basiru Kan maa ngi koy siyaar Baye Fall ca ca Fatick maa ngi koy siyaar sëriñ Saliou Mbour sëriñ Saliou Jaxaay maa ngi leen di nuyu di nuyu autorité yëpp nag rawatina suma mag Baara suma kilifa suma xarit docteur Macoumba Diouf maire de Latmingué defaral na mu ay tiset jàpp ci yaa ngi dégg madame Ndiaye maa ngi koy ziar Yoro Diop booy Diop Yoro daa bàyyi ay soxnaam ànd ak man fu mu dugg mu dugg fa fu mu tëdd mu tëdd fa xaalisam xelam pexeem dara fekkewu ko dama ko yërëm sax daa jeex tàkk Yoro ma koy ziar bu baax sama fans club bi nekk Malika ñu ngi waaj bi nekk Thiaré aw ma seen fay. waaw maa ngi nuyu ñëpp di woo ñëpp nañ ñëw arène nationale def lañ miinoon euh, Serigne Basirou ca Thiès maa ngi koy ziar na ñëpp teel a ñëw ma def liñ miin ci man suul tànk yi ràcc ñeme jam-jam yi coow li jeex. ma ne